to my party We're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink cause I think I'm going all in Get me a shrink who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handle ñu ci poste police yu nekk ci suñu réew bëri na lool lu ko waral du lenn lu dul jëfin ak doxalin yu ñaaw yu askan wi di nit sàcc agressé naan jayamba wala sax gens lepp lañ fi faral di gis pa bi nak di wat ci lan moko ko bir jël jeel xam ya. lan lañ la mo ta fam famille la quoi problème fo héritage yi quoi lo lo lo o ñom ñu daan gêné di ma lëjal ci kër gi ndax rien que par man bokuma ak ñom dara waaw ma ma génn nak am problème ak ñom eh, am fa histoire ñu jàpp pendant 30 ans. toi pour, comme il y avait un mort, il fallait que me préventionne lu yàgg ñu soog ma jugé. moom nag mu tëdd lu tolloog ñett fukki at wuteeg ki nga xam ni dafa fa lu dul juróom-ñaari at. presque def naa fa sept ans def naa fa sept ans fa lañ ma jàpp te tam préventionné naa fa yàgg naa fa trop. ana lan moo dugal waa ji foofu muy laaj boo xam ni dina ci àddu bu baax. dama jóge fi benn goudi ma dem benn secteur xam nga buñ naan Mermoz japanta fa ak benn nit duggu bir galem jël fa ay or jël fa xaalis maag sam benn copain pa 3 la ñu woon nag jël fa ay xaalis même gaayan bi ci bopam bima ma jëlee dama ko jappam takal ko ay manot diko torturer ci bir nek bi ba ay côté 5h du matin après nak euh, numa ma man ak sama copain yi nag gardien yi ñu après damay génn rek gaayam bi di yuuxu ni may génne nag gardien yi songuñu ñu commencé jàppanteeg gardien yi sama beneen gaayam bi rëcc maag sama beneen gaayam si la xam ma rek rëccee daw dugg si biir koñ bi seey jël taxi nag daw dem génn dakaar mais jëloon naa ci moom xaalis yu bëri ba pare tam mën na ci sax falaa ko mujjee bàyyi quoi après nag ma def ay un mois deux mois trois mois si laay dox ay côté ville waa jàpp ma tapel ma usurpation de fonction vol en réunion usage d'arme sax de meurtre quoi. ñoom nag xamul nañu nii bëkkante nañu ak façon nit bu nekk fële ca jël comme ñu si mel nii. Ablaye Wade li libéré fekkaat ma fu libéré waat doom ji fekk ma fi encore. jot naa fréquentation am ak yenn band yu mag yaa ah, parce que man boo xoolee band yu mag yi nekk senegal yëpp ñëpp xam nañ ma quoi. comme Bouba Chinois man sama grand la Pape Ndiaye sama gain Alex tamit xam ñom nak tuddu nañ fi ay yo xamni faté li nañ ñu lu bëri ana kan moy kamal ak bubo chinois naka lañu daan dundé dundu banditisme lolu di ay laaj yo xamni dinañ ci gëstu bu baax ñu ngi fi nga xamni modi buntu pikin ci luñu ñu dégg nak gox bi la ki nga xamni modi kamal di yéwo ñu fas nak top tank bobu li sambo boy ngir rek mëna xam mom moy kan ñu wër ko nak ay waxtu yu bari ci bir gox bi waaye gisuñu ko ben yoon laata ñuy ñibi nak ci lañu seen ben samba boy mu jublu ci ñun tey tambali ab waxtaan ci retour bi la dëkk dañ ma gisé yama jappuma ma kasso def mo dara wër na xaadimul xadim ñaata yoon 2002 ans 2004 300 forfait 4 ans 6 mois ci ay waxam nak mom mi nga xamni modi yaya jëm na daw lepp liko yoon daan topé ni may jiñ def mako ko sàccoo mo ma agressé woo agressé ma musuma ko def ba ci yag mu mujj nangu mbirum sàcc mi sàcc mom def nako ko marché dimanche eh, mais agressé musuma ray jam nit mom nak xamal nañu ni mom ak kamal andu bu yag la kamal sama nit la kamal sama way la yalla ko yalla may jam. la tañu tagato ak mom nak yaya digon nañu ni suba si fajar gi dinañu indi ki nga xamne lañu doon wër mu kamal waye biñu téwé ci ëlëk si taxerlu nañu lu yagg te gisunu ko ben yoon gannaaw nak bañu gëné xoo ci biir gox bi ay waxtu ngir rek mëna gis ki ñu doon sét mujj nañ ko seen ci bor stade bi mom nak mu dëggal ñu bu baax ni mom moy kamal waaw man maay Camara. Yaya nak kamali itam jëm na daw le pulu ko yon dan topé. Terna naa ba tër correctionnel. 14 ans correctionnel waaw. lan lan nga defon ba ñu duggal la foofu. affaire association malfaiteur te loolu man bokuma ci wër yalla man bokuma ci ay nit ñoko dafa ko duggal ba pare dugal te man bokkuma lu dem ci walum jëfëndiko yamba biñ koy tuumaal itam kamal wedina ko japp nañ la ci yamba sawrañe non non non Defo ci dara police police hmm. sawrañe bon yamba terbuna ak police kenn su ma téye sama loxo ni affaire yamba hmm. musul am ñu laaj ko nak nax mus na fat ab bakkan waye nanguwu se wax lu leer mel na ni boobu laaj lal na ko ah crime ah, ah loolu loolu moo <laughs> waraguma quoi. nag comme Yaya. cicatrice yi kaso la woon. kaso la def cicatrice. waaw maa maa lay sori sama bopp. lay appel ngay toog man toog damay taxaw. tax lu tax nga lañ set sa bopp nii. gars yi rek. gars yi waaw. seen yaram yi bëri na loolay cicatrice. ah yéen waaw waaw prison laa ko defee Prison. A ah, kaso. Kaso. Mhm. Ah, wala ladwe mo se ka tere se nek bi. A ah, prison la ko def ak yi. A prison la Lolu nak waji nga xamni fréquenté nako di delu ci wat ci nan la daan def jël ba am cicatrice yooyu le kamal ñoo nekkoon doon moom moo ma jiitu woon sax ci kaso bi bu musaa na mer jàppante garde yi day jël yaram bi du ko waaw day dagg yaram bi maanaam lu muy génnee ci deret kenn xamul nu mu toll man loolu moom tam dafa marqué na ma si moom grand yooyu c'était des grands bandits ñoom maanaam ñu dund ak ñu dee benn la woon si ñoom même tamit ay buuba chinois. maestro nag di dellu ci benn cicatrice bu nekk ci biiru Kamal mu ñuy xamal ci yan anam la ko amee. dama dem sàcc xaar ñu dóor ko dóor dóor ba nar ko rey na ko dañ lay jël si ñu gën ko bande mu ñëw jam boppam da doon sax mais après yaa ji moo si jàpp baal ko. lool du ngóor loolu du ngóore loolu bi mu cóollee dañ ko dóor ba nar ko rey ndeysaan mu mu ne day xaru gaa yi bàyyi ko loolu la quoi parce na yoo xam ne bu la ko defee te ci néeg la dóor du matin jusqu'au soir ah. loolu la quoi après ci la xaru ñooñu xamaa dañu mel ni maax yéen rek yor xool bu rafet daal du koy baal parce que booy dóor nit ba nar ko rey mu muy jàm boppam ba bu si diggéen na ndeysaan loo ko mere mere mere da nga koy yërëm quoi. moom nag xamal nañu ni moo Kamal. bokk nañ temps booy. kamaal bi ngay gis ni yàlla moo leen dimbali dimbali ñëpp ba ñu mel nii ak Yaya ñoom seen groupe gang la woon les fat boys la tudd woon mooy ku ñu fat dañ lay takk a pare génn la jumaa ja lañ lay yóbbu du mën nañ la duma ba suba mu ñu pare lay sànni quoi muy ñoom group boo xam ne ñoom ay rey nit def lu bon rek moo nekkoon seen métier ak maam Cheikh Ibrahima. maestro nag nekkoon tamit benn samba boy daan yëngu. ci wàllum jaay boon wuti ak lii nga xam ni moom la ñëw Kamal daan def. jumaa lañ daan nekk ñun ñëpp benn ak soxla syndicat jumaa ja syndicat jumaa ja école école set gël ba kenn daaw fa romb bu bu dëkk ko fa romb di nga doon néew wala nga def taatu nen heure bii rek buñ ne allah wa timis ba suba ku romb la def taatu nen. moom nag xamal nañu ni Kamal sonnoon na fi ay temps lool ndaxte. auto fi na nako fi ba ñepp fokon ni day dé dee saabu pompe moo ma dëmbali yalla sa saabu moo li gis na opération fi mu yem fi distance mi fi ak moo tax sama tank wad waaw ga sax ñom ñepp dañu doon dundu banditisme waaye melna ni maestro mom japp na ni bandi deug nekul ki nga xamni modi fat bakkan ma do lu yëgoo te mooy ñoom dañ doon dox di wer jam de ak agresse de ray nit man billaahi wallaahi wa taalaahi laa sama rakk yi man yéen seen papa yi ñoo war cité man noo toll mën naa la affronté duma yor jàmm man sama bantisme am gel dagg samay jiin naan tux mais billaahi du ma agressé du ma jam du ma xam loolu. man tey baax naa trop mais am na ay yoo xam ma nekkee booy 1992 95 ba 16 waaw yow soo xebee sax ma def benn bu sew jaay yaa mbaa ñuy jàpp ñu yóbbu ñu tëddee parce que dañ fay am ay gang yi gang. mom nak japp eh, na ni jël Sénégal bandi dañ ko def ab hôtel. bande bo xasse ba don bande ba ñam 100 mètres après yambaru 100 mètres ngay don quoi waaw parce bo défé dara au lieu bo ñé ga toj sokkat gën la da ngay ñow fekk say morom yo xam yéne and a ànd defandoo mu ngi mel ne par exemple ñu nane montre bi bokkor ra rek nit ñi ne dañuy naagu défé na 100 mètres ay jël ne ko hôtel la hôtel. monté Kamal nak nek na ko xam ni jang na alcorane bu baaxa baax likoy firndel alxuraan dama ko naan comme ni may naane boisson comme yow ni nga naane boisson. alxuraan noonu laa ko naanee. tari ma benn saar ma xool. ban nga bëgg. falax it. xulan door falax monsieur maa xalax monsieur xaase xaw ne sa faa safi xool xaas yu sax sat ak ban. kursi yu. kursi yi. allahu laa ilaaha. allahu laa ilaaha la xeexeem la taxadu jannati wala numa law ma samaatu fi larda man zali yees wa indu ilaa bi ñu yàlla ma bayna di wa ma xalfam wala yaxitun bisa mi lihat mi masa, wasi aku sama tuh allah rozir, wah wah azizul alaqim. Kenal nak banyak ler lo, baham kini ni modi kamal, fikirnya nyu bagi sante ab jaga nyalo, cibu bersin wa, modi ab sohnam, mom nak fas naya ni waktu nak ji kan moy buba chinois papa mo sante ce sambo bokat ce le tud moy paye de won guerre vernal yamale ñofi indi maire waaw moom nag mu ñëw fii man ma xamante moom man rëbës laa ko xam ndax sama yaay daf maa génne woon suñu kër yaa may dégg may dox di dox ba dugg foofu rëbës ci laa koy xam mais xaw ma kan mooy boobu seen à laa lay wax maintenant j'ai quarante trois ans ci ay kàddoom ndaw si lee xamal nañu nii Bouba Chinois benn loxo la yor jamono jii waaye bëggu ci àddu bu baax ndaxte benn bant bu ñu sekk fi mu nekk dañoo dagg loxo bi day xeex ci mbedd mi maanaam bëgguma wax lu bari waaw sama doom moo tax ndax mi ngi ëllëg te ñoom ñaan ñoo sekk dund na dund bu metti ak ki nga xam ni moo di buuba chinois ndax cicatrice yu bari yu mu am jamono jii ci moom nda ko jëlee bàyyi naa ko ndax lii yëpp moom ma ko def waaw parce que boobu jamono yooyu dafa nekkoon si jamonoy zahir mais après dem na bi jamonoy baatin ba nekk ibaadu moom nag jàpp na ni jëmm jile du dara waaye jaloore yi mu def rek ñoo ko may tur lu ci mel ni banque bi mu cambriole waaye itam rëbës bi mu rëccoon buuba rayu nit deful tus buuba daal benn barakaas la fi def de baraka benn banque jeex na madame Elisabeth moom da koy wax. moo évadé nag ci prison bi moo waral ñu yokk. moom nag xamal nañu ni Bouba sekul lenn ak ñi nga xam ni ñoo di Alex ak Ino. Alex ak Ino Bouba bi muy bàyyi ci la ñoo di doog a jóg moom sekul ak ñoom dara. moonte pour waa ji nag moom ak buuba amaloon nañu histoire ndaxte bokk na ci ñu ko formé. buuba chinois moom sama grand la moom bu ñu may def chef de chambre sax jamono jooju biir 100 mètres moom mu la chef de cour bi moom la laaj na ko papis yàgg na fii mun naa ko jox nekk mun na ko jox ko papis àtt na avant kaso dañ doon ànd maak moom par guddi di dem di dugg si boîte yi di ànd xam nga des fois ñu sax jaay naa ko waaw drogue jaay naa ko jaay naa brown jaay naa xeer jaay naa cocaïne waaw. ñoom nag jaar-jaar bu metti la ñu dund waaye ñu ngi bàyyi xel bu baax seenub njaboot. raw ci doli ñi nga xam ni dañ ci am dom sama dom, chaque jour dama ko koy tere te buuba chinois moko ko jur chaque jour dama ko nan jéema la xool yoon bu baax nga def ko waa déggoo de football nga gëm yalla nga doon Sadio Mané bi may génn sama dom presque nek na mak quoi lolou tam bokku na lima gëna metti et puis ma génnee tam gel bobu bayina ma dem na Europe ma genn awma job awma ma dara société bi metti trop ci man maa gor góorgóorlu nak quoi. ma amul Fatou mbay 92. waaw amna mohammed Mouhamed amna mam naa Maam barki seraval damay dom dañ hmm. moy xolé hmm. li ma doon dund duñ ko def. Hmm. suñu kandiko ci ñom nak banditisme amul ben sens ba taxna ñu ngi ñaax kep koy ndaw nga baña a maytu li nga xamni modi jël di jeel. ngeen mel. tëdd naa prison. def na lu nek gis naa ay tolom konon hmm. kon loolu daal ba la si jaar hmm. ba ñaa ba dama sama xel ak sama xol hmm. yaa nga dégg ne bétis boo xamante ne moom laa doon def bëgguma sam benn militant ak sama reconnaissance jaar sa quoi lu ma leen di conseillé man de parrainage kaso baaxul quoi kaso moom nekk na loo xamante ne wax dëgg neex yàlla képp kuy jeune na nga ko moytu quoi te boo yi nii tamit ñu ngi dugg loo xamante ne dafa garaaw quoi Sénégal banditisme bi dafa gën a am doole képp ku jàppale bon na nga ko bàyyi baaxul day yàq nit rek gis nga lu baax daf ma neex trop moo tax maa ngi nee nekk gentleman gis nga sama ma sama benn moroomu góor damay kat nii rek loolu rafet rek laay sol parce que je suis un je suis un coof quoi sama je sais que juré au damay dem àjjana lan moo waral sama robu góor romb la nga koy dóor lan moo waral sama robu góor romb nga koy jëw yooyu affaire yambar yooyu gis nga nante du góor du jigéen nante du 10 ans du 15 ans du 20 ans nante ci xol la